Mauritanie sama waay la jàmm ñal jaara busuk wala man se bi jaara jurujub yow sax waa joxal ma ma doog a wax kese bi. waaw kese kese bi. yow wala mu wax dafa xam lu bëri li mu xam dafa bëri. waaw li mu xam dafa bëri. donc Mbaye bu baax a ngi nii. Idali nag tëddi sama waay te moom na bëgg rek bu bëggee Idali bu bëggee garaawul mën na def bu bëgg ko. merci beaucoup donc Mbaye euh, léegi ça va quoi d'accord. mais rendez-vous mais rendez-vous Mbaye. Ida dama lay delloo xaalis bi. ah la cinq rek jàpp. la kañ. la cinq lan ma xew. la cinq yow la kañ. non non man xam nga nag jàmm gën a xam. jàpp xam nga kër gu mag gi. comme ni nga koy waxee. jàpp kër gu mag gi daa am ñu xew la la cinq. yëgul kon fan nga tudd nag yow. kër gu ndaw bi fële. xam nga yéen. nga très dangereux. ak kii Mbaye. ñu dem ñu demal ñu ñu de. ah non mooy yooyu day furi. mais jàpp. ma Malah kayak apa? Iya, betul kan? waaw <laughs> incha allah loolu loolu laa bëgg a dégg. ah rendez-vous incha allah samedi. nañ daje fii. samedi samedi mbay samedi la 28. non la samedi octobre laa la wax. samedi le 28. ah samedi. di daal di samedi le 28. ana ana kii ana ana kii xoolal eh, eh, Yérim waaw ñëpp ay dem incha allah. ñëpp ay dem incha allah. ñëpp mbay. merci Diop merci Diop naka dem boppam. mais ñaab soo la cinq août bi. Ah. si Diop woo na la de. ah waaye incha allah dinaa ñëw. incha allah <laughs> mais mais maa day dem de. mais eh, loolu moo war. si Diop la centre di boobu. wóorugul de maa ngi xool. waajal waajal waajal day ñëw. waajal day ñëw. toog naa ñu bëtuma de. nga ne dégguma. la cinq bi waaw. da ngay ñëw da ngay dem. comme yéen i demoo naa la cinq. demoo demoo. mais Ndiabso mais Ndiabso. di daal di sama waay la. càmmiñal jaara busum wala mañ sa bi jaara jurujum